jokkaloowul ak seeni gémmiñ ñuy dégg wax ji xam nañ ci suñu yaakaar ak ci lu wér ni yéen a ngi tudd yàlla te mooy astaxfirullah bi kon ñu ngi leen ci ñaanal yàlla di ci ñaanal suñu bopp yal nañ ko yàlla boole nangul ndax lu rëy la te nag dama wax ni nit lu tiit ñaari yoon tiit bu njëkk bi mooy nga nekk ci àddina sa xel di xalaat yowmal xiyaam ak ay problème am nga tiit di ko xalaat ba ñemewuloo faat julli fu la julli fekk ala kulli xaal nga góorgóorlu julli ko loo dégg ñu ni baax na nga nekk ca loo xam ni lii baaxul nga di ko moytu xanaa ba nga am njuumte bu fekk buggoo ko woon kon astaxfirullaha yooyu mën nañu ommat ba teg ñu ci kanamu yàlla ëllëg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam présenté ñu diggante ak suñu boroom ñu xam ni ñii sama aw xeet lañu woon sama ginnaaw lañu ñëw mais jëf ju réy ji ñoo ko def muy tuyaabu bu rëy boo xam ne ku nekk ngéeju woon na pour bokk ci lu rëy loolu kon yéen nag ñi ngi leen di ñaanal yàlla tey kontaan ci yéen yàlla na yàlla nangu te ku ko def yàlla dana la defal teraanga àdduna ëllëg yowmal xiyaam daa am teraanga te mbokk yi li may digle mooy internet bi boo koy déglu danga ci dégg ay wax yoo xam ne su ne ñi ñii njabootu yonent bi la yow dangay ruus ndax comme ñun dañu jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallama muy suñu royukaay ñu bëgg koo topp ëllëg yowmal xiyaam ñu dëkk ak moom àddina bi ni mu yaatoo te bari na ay njaboot yoo xam ne njabootoo ci yonent bi mais loolu lépp dégguma ci ñoom benn kàddu bu safaan ku dul ñun ñi nga xam ne ñun ñoo wax ni ñoo bokk ci yonent bi ñun rek ngay dégg ñuy kontar kontarante bu ñaaw di waxante ci suñu biir wax yu ñaaw fekk ay kilifa yoo xam ne waxuma la dara sax mat nañ la maamaat di ay mag yoo xam ne dem nañ bu yàgg ñuy wax ci ñoom ay wax yu ñaaw ñun ñi ñan ñoo koy wax ñu ni jullit yi mbokk yi loolu suñ ko mënee moytu moo gën dëgg la nag ñépp mënuñoo àndandoo gëmandoo benn mbir kooku alxuraan wax nañu ko yàlla nee na programme wu ma pour yéen ñépp ngeen nekk jub benn yoon man la neex man yàlla ma def leen ay kuréelu kuréelu kuréel mais loo uute uute ak sa moroom boo koy critiquer kenn bañul nga critiquer mais nanga ko teg ci yar ak ci teggin ak ci yiw loolu ndax nag ak lu la loo wax ju ñaaw ju ko waaye mën a def yow boo déparé di wax rek bàyyil sa xel ni man njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga kon man daal jomb naa wax lu ñaaw ñu naan kii njabootu yonent bi moo koy wax ndax ñu ngi yenn saa yi damay xaw a am kersa trop kon loolu buñ ko mënee bàyyi ah ñu changé méthode bi ah ñun nag waaje dama ne ko man de bokk naa ci ñu nga xam ne ku ma saaga baal naa la aw ma jotu tontonte saaga soo ma saaga ma ne la jërëjëf macha allah eh, kon ñiy def astaghfirullaha ñi ngi ñaan yàlla te óolu ni yàlla dinañu nangul ndax jamono bi dafa lëndëm musiba yi dafa bari xeetu mooy yépp yaa ngi koy dégg yenn yi nga di ko gis yàlla dogal na nag mu am kuréel boo xam ni tànn nañu féeteyoo ak yàlla ni ko sa astaghfirullah bi fas nañ ko yéene def seetal monde bi lépp lu ciy xeetu bàkkaar ak ñaawteef ak tilim-tilim dëgg la préparé nañu pour astaghfirullah yi mu raxas àddina bi mboolem lu ciy bàkkaar ak yi ñaawteef kon loolu nii ñu kontaanee ci yéen di seen moroomam mbindeef kon ki leen ki ñu bokk bind muy subhaanahu wa taala yal nañu bokk gërëm ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te itam nag ñu am xelu ak xolu képp koo xam ni wax na safaan ci ñun ak lu mu garaaw garaaw garaaw nañ ne ko jéggal nañ la ngir yàlla ñun amuñu jotu wax lu bon amuñu jotu tontu lu bon ñun jël nañu suñu làmmiñ teg ko ci astaghfirullaha astaghfirullaha astaghfirullaha lu ñu waaye def rek ak lu mu ñu wax rek jéggal nañu ko kon loolu mbokk defe naa gëj nañu déggante lii mooy sama première waxu tey bu subaa nag ma doog leen andil ay njariñ loo xam ni ci biir alquran la te suñ ko toppee danañu am àddina danañu am alaxira te mooy defi mu naa ne seytaane fi mu nekk nii kontaan na ndax nit ñëpp dañoo daw uti wërsëg te gàtt fan ñëpp koo gis problème boo mën a wax déggula waaje dama ni ko dangay waaraate di wax ci sharia di wax ci sharia di wax ci sharia ba mu bari lool mais nga tudd benn baat boo ko defee da nga am alal da nga am nii nangam baat boobu kese lañ lay laaj la nga doon wax ci sharia duñ la ci laaj dara kon eh, wa innahu li xubbil xayr la shadidun ni ki doom aadama moom ku ku ku bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg alalu àddina la baax na nag mais bu mu tax nag ñu fàtte suñu ëllëgu àllaaxira dëkk gañ fay dëkk nga xam ni dañ fay dëkk ba faaw dutuñ fa jóge ba mukk ak ay xéewal foofa la noos neexe foofa la tiitaru amee foofa la tukki gën a mën a yombe àddina fu la neex fu xam boobu aalam naka la toll mais yàlla bu ñu ump ci barke yonent bi sallallahu kon kontaan nañ ci yéen yéen waa astaghfirullaha surtout waa Allemagne ak waa euh, dëkk ba Suisse ñoom euh, ki sama waa ji ndaw euh, Moustapha Ndaw Mamadou Ndaw Belgique waaw Mamadou defe naa mooy Moustapha Mamadou Ndaw Belgique ak suñu jigéen bu baax suñu doom ju baax ju jigéen ji nekk euh, France soxna Ndey Astu ak mbooleem ñi nga xam ne rek ñi ngi ci biir moo tax xam nga soo tuddee rek dañ ne lu tax tudd fekk ñépp lañ tudd ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi kontaan nañ ci yéen yal na yàlla kontaan ci yéen seen mbokk seen doomu nday di papa di xarit di nijaay di si Ahmed Tidiane Niang di seen mbokku taalibe asalaamualeykum wa rahma wa baraka